loo ma xamal man su ma bëggee sa taat yi tam sa taat yi bëgguma ko ndax sa taat dafa late lu ne yow taat ne lu ne fa taat lotee rek koy mu ngi fay late ndax gis nga sama taat yi dama koo bëgg te fonk ko te gis nga sama taat yi damay sol lu jot di sol lu baax ndax xëy na sol naa robb waaye dama cay jiital kii bi saar waaye yow mi man awma tuma lu may wax merci baax na jërëjëf kañ nga nekk kañ nga <laughs> te nii non déglu ma non jarul ngay ree man du ma la miimal dara man dangay ree man réew ma. waaw dama laaj non non du la wuyu xaw man su ba li nga sol rafetul li nga safar li lépp bon. li lii lii lii lu baax lii. lii man si lan laay lii. man su dee lii moo tax nga may jéem a sarmee ko woo ko aja ka aj wàcc nga man gis naa lu ne. non dafa ndànk rek bin bin. waaw dafa ndànk bin waa déglu ma dama lay wax ma rek waa déglu ma man xasuma la xasuma waa waxuma la sànce woo sànce nga waaye lii li ngay ajee nii man moo ma jaaxal te nga wàcc sa sër yi wàcceel sa robb yi moo gën sa yi ngay def waa lii sa lan lay nuru lii non man dama amatul dara lu may wax ndax fi ne <laughs> non dama xam yii ngay def dafa amul solo man nga déglu man kilifa laa te gis naa lu ne man dara jaaxalu ma sa yii ngay def ka ajëkka kay waaw wuy ma xam nga sànq xam nga sànq wuy ma xam nga déglu ma may may déglu wuy ma xam nga sànq dama la wax nga ne man ne la loo doon def états unis nga ne ma da nga doon entraîner da nga doon jël poids yëg yow ana poids bi nga doon jël ba ma ñëwee non damaa dem tey tombé rek ñu tëj saali <laughs> mais gars yi ñu ngi doon dem géej di daw non non waaw man entraîné wu man dama main ne maa ngi doon entraîné daal benn affaire la lay geum la lay wax. wa déglu ma ba e eh, xol dama e eh, xol soo la labante ma nokk la nga may jema ki beus no may beuse ni eh dama lay arrêté eh, ah. wa waaw bul ma bësati wa sama wa sama na fa indi problème non non wa jeex non da nga def interview ah. yow xolal ubil say beut nga xol ndax damay def interview defo interview. Like, sey yi nga may def yeb man tuluna yi man li nga may def jaaxalu wa deglu wa wa waa may deglu man yi ngay def tourna sa ajak sa aj sa biñ yek man gis na looy man li jaxaluma ba man dama deg tamit ñu naan xali yi ni ñom ñoom wax nee liri liiri dafa bëgg jigéen liri def du bëgg gaay liri dafa bëgg ay taat bëgg taat yow ko yow ko rew nga no da nga rew no da nga rew bi da nga rew no da nga rew man sa morom la bëgg def bëgg taat ah non dama lay wax da nga réew man du ma sa morom ah. non dama lay wax eh dama lay wax man du ma sa morom ah. yow yaa réew waa arrête. yaa may gaañ. man dama lay wax du ma sa morom. Eh, non dama lay wax man dama lay wax du ma sa morom. waaw ça va doy na. buy ma daa jeex jeex dama ne li nga sonn nii dafa naaj si laa wax. booy. jeex na non non pare naa ndax yow da nga réew da nga réew. non da nga réew man du ma sa morom non da nga réew. non da nga réew man du ma sa morom sooy tax ak man naan ay eh, da nga bëgg a taat. man war ngaa taxaw ma ne maanaam ay doon bëgg tax. waaw war nga sol sa sol yi la léegi yow dama lay laaj laaj lii pour la lii lan la. wuy ma waaw baal ma wala lan nga. waaw wuy ma man maa ko def man miy wax ak yow. ma waaw non dama man maa ko def man miy wax ak yow. waaw déglu ma dama lay laaj man laa man miy wax ak yow man maa ko def. ok waxatuma waxuma waxatuma sa yoon nekku su rafet su rafet sa yoon nekku ci. waaw d'accord sa yoon nekku ci. waaw d'accord nag may man noobuma la tey noobuma la ëllëg faalewuma la lijjantiwuma la ok su dee loolu nga xam. waaye man man waruma ku may nopp. yow dafa taat ne moo la damaa woowantewul ak yow. ma envoyé. waaw dugal ko ma wane ko. wane naa ko wane de. waaw ma wane ko. sa diggante yàlla. ah non dama lay laaj dama koy wane de barki Serigne Bamba Mbacke dama koy wane. Ah, bari na. vidéo boo defee taatu neen sax envoyé nga ma ko. waaw. waaw si non dama lay vidéo boo defee taatu neen. moo tax waaw looloo loolu c'est pas vrai waxoo dëgg vidéo baa ngi nii. Ah, c'est pas vrai c'est pas vrai. yow bi ma la envoyé taatu neen yow loo ma envoyé. man mii lan laa la envoyé. lan laa la envoyé man. waaw damay laaj lan laa la envoyé. Ah, waaw léegi loo bëgg a foofu génneel li ma la envoyé nga génne su fekkee man na envoyé naa ma li ma la envoyé li nga ma envoyé mun naa ko génne man génneel su fekkee man envoyé ah, naa sama téléphone génneel su fekkee la man génneel ah, génneel ma génneel li ma envoyé ah, non dama lay wax génneel ma génneel li ma yow li moo tax man gis nga vraiment yow yàgg nga maa topp bëgg a def ak man émission di ma woo guddeeg bëccëg ñëw ma maye la soxna si damaa jàpp wala ko ku la jox sama ne nga expliqué nga ma yëpp. waaw wuyu ma déglu ma waaw sa ba bi ma la woowee da nga maa wuyu. waaw est-ce que yaa ngi may dégg bu baax avant ma ñaata ma woo ma la. sa yow mi liiru yow. mosul am te du a am yow kan may jàkkaarloog ma yow nga maa ne man ma lay ma lay nga bañ a jël loolu amul fenn fii Sénégal la xam nañ lépp dofuñu dina jàpp ñu deewuñu daaju wax xoolal du fi taw tane dañ koy dégg te su boobaa dañ koy sango suñuy poj suñuy yaram di xees di nas na si yéen góor ñi ngeen di gees kan ni moo nekkoon émission tey sama diggante ak nga xam ne mooy liiru jaañ maa ngi leen di remercier bu baax a baax ngeen ñi nga xam ne yéenay waa jaasigi tv li laa leen indiloon tey yaa teg sa weeni wuy ma samay wen de laalu la jegew la man sama wen bu la laalee da ngay dugg ci biir seetu bi ah, man xam naa si loolu moo tax ma gis na rek dog dog dugg si biir

non non nii ngay liggéey du nii ndax soo taxee ak man déglu ma xam nga yéen lii moo tax lu nekk di leen dal ndax ñëw nga ak i sama wax ma lu neex naan ma man damaa bëgg jigéen man loo ma xamal ma yàq nga am da ngaa bëgg taaj